d'accord su ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy combat bu mag bi diggante Pape Yékini ak euh, Kalmu Ndour waaye avant loolu combat spécial bi diggante euh, ki mooy euh, gone gi nekk Dóor ak Boy Dakar. ñaari xale yu mën a bëri lañ boole. combat nii lay mel. da boole ñaari xale bëre bi neex. mais Giro daa xamul Boy Dakar. bu xamoon kan mooy Boy Dakar du ko jël. ndax booy dakaar ndaanaan la booy Dakar champion la booy Dakar drapeau chef de lay bëreel kon kooku bàyyiwul bëre yaram bi màndi na bëre mais Giro ndaanaan la yaakaaroon na mën na koo daan combat bi metti na ñu xeex mu dem ardo bi mu jógee ardo ñëwaat action ba mu doon tante moo ko daan moom Giro Seras mais champion la na góorgóorlu li ci kanamam des na te mu xool ñi muy bëreel. Pape Yékini euh, li may wax chaque fois rek am na xeetu mbër yoo xam ne bu ñu bëgg lu yomb jël keneen ku may Pape Yékini Calme Ndour ak général Malika combat la ak Libidor bu Grand Yoff combat la Calme Ndour Calme Ndour ak Ndiaye Tine parce que man combat laa wax man damaa bëgg bëre. waaye njariñam yu neex la fii. mais booy tànn di wut yoon ñu lay wutal yoon bu yomb léeg-léeg nga jël lu difficile ndax tey Pape Yékini pompé yi mu xaw a pompé Calme Ndour bu doon Calme amul entraînement bu baax ak compétition yi mu compétir ci bëre simple bi kon day daanu kon dóor yi ko Pape Yékini dóor bu fekkoon amul entraînement bu baax day wàcc maa ko ku am entraînement la ndax compétition bëri simple moo ko téye